di waxtaane émission bu am solo mu di jaar-jaar yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ay fa tabarakallahu di nuyu borom kër gi Cerno Hamid yu rabbaan nuyu itam fa tabarakallahu ajratu ñu ma ba waaye itam nuyu mboolem mbokk yi nga xam ni ñi ngi safoo seen rajo télévision Safina TV e eh, fa tabarakallahu xam ngeen ni kala aada comme ni ñu ko baaxoo di defee aljuma bu jot léeg-léeg ñu dugg ci benn yonent wax ca kemtalaay kartan yaakaar ni nit ñi am na luñ ci jëlee ci ay jàngale yu am solo ñu toquwaat duggaat ci beneen yonent xam ngeen ni jamono yi ñu ngi woon ak yéen ci yonent yàlla aadama alayhi salaam di abul bashar fa tabaarakallaahu am lu ñuy fa yéen tey jii nag ñu war a toquwaat ci beneen yonent te moo di yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam xam ngeen ni Ibrahima alayhi salaam yonent la boo xam ni ku am taxawaay la te itam bari na ay yonent yu bari yu soqi ko ci moom kon kooku nag dayo bu rëy bi mu am ba tax sunu borom subhanahu wa taala jàppe ko mu nekk di xaritam loolu nekkul di lu ndaw waaye tam lu rëy la waaye tam taxawaay la mbokk yi bu nu bëggee ànd ak yéen ci yonent yàlla ibrahima alayhi salaam war nañu xam kan mooy ibrahima alayhi salaam war nañu xam itam ibrahima alayhi salaam ana fan la dëkk bi maanaa ana fan la juddoo kon daanu gis ni laqad wulida seydina ibrahim xalilu rahman alayhi salaam fi baladin ismuhuwa babil bayna dijla wal furaat bil iraq kon Seydina Ibrahima alayhi salaam mi ngi euh, juddoo ci dëkk boo xam ni mi ngi tudd Babil ci diggante Dijla ak Furaat ca Iraq bu ko defee nag daanu gis ni wa kaana yaxkumu haadal balad malikun zalimun mutakabbirun ismuhu an-Namrud bun Kanaan daanu gis ni kon e, ci jamono boobu mu juddoo nag am na benn buur boo xamante ni buur bu mën a tooñ la am na buur boo xam ni buur bu rëy la ah buy rëy rëylu mi ngi tuddoon Namruus doomi Kanaan mu mel ni kon yooyu mu jikko woon nag moom buur boobu nekkul di loo xamante ni lu gënal sunu borom subhanahu la bi ci njëkk moo di tooñ yàlla bëggul kuy tooñ te moom tooñ rek moo nekkoon ci moom ku mu ëpp doole nat la di rey di yàq di def naka sul noonu ci kaw suuf te loolu sunu borom subhanahu wa taala bëggewu ko noonu waaye tam nekkoon koo xam ni daf doon rëy rëylu te yàlla subhanahu wa taala dafa wax ni rëy mbubbam la moo xam ne moom rek moo koy sol kon kep ko xamni ñëw nga ci momel ak sunu borom ba ko xëccu ak mom jàdd nga yoon mo tax kon mu nekkon bur buri waye mi ngi tudon Namruus wa kana ahla hadha al balad yanhituna al asnam wa ya'budunaha min duni llahi jalla wa ala bokk yi euh dëkk bobu wala bur bobu ak ñamu andalon te bobu la jamono ana lan lan don jamu ma karni, ni jamu, ken kenn lan ko wara defal modi sunu borom subhanahu wa taala mi nga xamni ni len bind waye tam mo amal lepp mandi man di don ñom nak dan don yett li nga xamanteni modi ay xerem ben mu nek bant wala mu nek xeer wala mu nek yenen ñett ko defar ko ba mu jekk diko jamu wa ya'buduna ha diko jamu min dunillahi wa lafsun borom subhanahu wa taala lol nak nek di ak ndof waye tam loy itam nek di ak réer loolu itam nekk di lu doy war su ko defé nak ma yaakaar ni ki nga xamanteni ya ko yettal sa bop defal ko sa bop bo nopi di ko jaamu du xel ñom kay bu jamu dañ am ñom ñi nga xamni ño defar loola ñom lañu wara jamu waaye laa maabud illallah jaamu wala su ko defal kenn ci kaw wala ci suuf ku dul sunu borom subhanahu wa taala kon ñom dañ doon yett ay dénk defar ko tek ko ben place diko ko jaamu wa maa anna haula annas kaanu yacbuduuna al asnaam illa anna al ajab min zalika anna malikuhum namrus bun kanaan kaan yaddaha annahu ilahun wa kaan yatlabu min qawmihi an yaabuduhu min dunillah mu mel ni am na lu garaaw loo xam ni raxaat na ci biir ca gannaaw ba ñuy jaamu yooyu ñettal seen bopp léegi nag am na lu yéeme loo xamante ni feeñaat na te moo di euh, buur boobu nga xam ni moo fa nekkoon di Namrus léegi nag ma ngay woote ak yàlla ma ngay woote ak yàlla te qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla kenn rekk la léegi nag moom léegi nee naay yàlla la ba gëmloo na ko askan wa gënloo na gëmloo na ko aw nitam di sàkku ci nitam ñooñu nag pour ñu jaamu ko bàyyi fële sunu boroom bi nga xam ni moo bind asamaan ma bind suuf moo bind garab yi moo bind lépp la man di doon e mbokk yi fi haasihi lbia alfaasida wulida xalilu rahman ibrahim alayhi mu mel ni kon <clears throat> ci boobule jamono bu yàqu bu jaxasoo bu salfaañoo bu tilim ci la ibrahima alayhi salaam xaritu sunu borom subhanahu wa taala juddu bi maanaa ci la ganee àdduna kon nak wuridal huda dafa melni li nga xamanteni modron ali daloon alayhi salaatu wasalaam ba muy ñëw fekk jamono tilim fekk jamono tak bi mu juddo ñu ni ah kon nak njub judduna ma rasul bam seex sëriñ harji malik radiallahu taala anhu di faal di wax ni law lam yaluh fi fadail kawni tal'atuhu kon day tabqal bariyatu fi salmaa iyallahu bi maanaa budul won gane aduna goo xamante ni alayhi salaatu wasalaam gane na ko àdduna kon bindeef yépp ci ak lëndëm lañuy ñuy nekk ba ba àddina yi tukki kon mboolem yonent boo xamante ni wàcc nga sunu borom yónni la ca boobale jamono jàppal ni jamono dafa taqoon dafa tilimoon yàlla bëgg na ku ñëw defaraat jamono ba jamono méngowaat ak ni ko sunu borom subhanahu wa taala kon ci boobale jamono mbokk yi ci la Ibrahima alayhi salaam gane àdduna mbokk yi kan mooy ibrahima alayhi salaam bi maana ana kan mooy waayu juram kon wa kaana waalidu sayidina ibrahima alayhi salaam yaamalu najjaaran kon way juru ibrahima alayhi salaam moom menuisier la woon waaw wa kaana mimman yasnauna al asnaam bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo liggéey yooyu la yàlla ah ta seen yàlla yi bopp kat ñoom moom bokk rek ñi nga xamante ni ku ca siiwoon la waaye ku ca amoon ak xereñ la waaye ku ca ñawoon la waaye ku ca muusoon la ba nga xamante ni lu musaa defar rek ci xeeti yàlla yooyu nit ñi dañ ko daan jënd di ko wéetal di ko jaamu te loolu nekk nekk nekk di ak réer kon waajur Ibrahima alayhi salaam moom ci lool la nekkoon ba noppi nag wa yaabudunaha yàlla yooyu mu daan liggéey ci dénk Ah, nit ñi daan ñëw jënd ko léegi nag di ko jaamu min dunillahi jalla wa ala bàyyi fi nag sunu borom subhanahu wa taala kon way juróom woowu ismuhu azara wax na ni mi ngi tuddoon azara wa maha anna walida sayidna ibrahim kaana yasnaw al asnaam wa yacbuduha huwa wa qawmahu kon daanu gis ni ibrahima moom bokkoon na ci ah, ah way juri Ibrahima alayhi salaam bokkoon na ci ñi doon liggéey yàlla yooyu ba noppi wëlbatiku di ko jàmm moo tax ñu ni way juri Seydina Ibrahima alayhi salaam moom moo doon liggéey yooyu la yàlla di ko jaamu ak nit ñi nga xam ne ñoo nekk ndawoon ak moom mbokk yi illa anna Ibrahima alayhi salaam kaana laa yusharikuhum fi hada dalal Ibrahima alayhi salaam nag moom sunu bam teel koo gindi teel koo giide teel koo soriloo moytandikuloo yi la nga xam ne baayam ak nit ñooña ña ngi koy jaamu bokkul ak sunu borom subhanahu wa moom nag kon lay sharikuhum àndul ak ñoom ci googule cànkute àndul ak ñoom ci googule réer bal li fi nekk kaana yarfudu zalika moom bañ na loolu buddeeku na ci soreeku na ci bi shiddatin waaw maanaam nag ci lu mu laaj rek ci sori loola moom def na ko moom Ibrahima salaam lu tax loola bokk yi li annahu ala yaqinin min anna haadihi asnaam laa tanfa moom teel na xam ni xam-xam bu wir ni yooyu la xiram baayam di ko jaamu ak nit ñooñu di ko jaamu mënul jëriñ te nag ki ngay jaamu daf la war di man di jariñ dara waaye gis na ne yàlla yooyu mënu leen a jariñ ci lenn waaye itam wala tadurru yàlla yooyu mënu leen a lor kon yàlla joo xamante ni mënu la jox nga lekk mënu la jox nga naan mënu laa jariñ bu fekkee da nga wéradi mënu laa faj ah mënu laa génne ci benn problème wax dëgg nag ku am xel war na xam ni kon lii kat yelloowul ak jaamu kon ki nga xam ne mooy joxe ki nga xam ne mooy xaje ki nga xam ne moo lay génne ci yenn xat-xat yi kookee moo jara jaamu moo yelloo jaamu kon moom teel na xam ni yoo yile yàlla du jariñ du lore waaye itam wala tux yii wala tumit mënul reye mënul dundal waaw yàlla joo xam ni mënu laa faagaagal mun laa alak bi maanaam mun laa rey yàlla joo xam ni mënu laa dundal loolu du yàlla te ñoom seen yàlla yooyu loolu moo ci feeñ kon yàlla ji nga xam ne moom la Ibrahima gis moom la Ibrahima bëgg a jaamu mooy yàlla ji nga xamante ni mooy dundal waaye tam mooy rayee ala kulli xaal wala turziq wala tamna risqa yàlla joo xam ni leer na ko moom Ibrahima alayhi salaam ni kii kat mënula jox benn wërsëg waaw boo ñëwoon tey di ko ñaan mënu jox bu amoon aajo. mun la koo fajal ah te itam mun laa xañ wërsëg wu dara ñëw ci yow innama hiya xijaara ay xeer kese la ak ay dénk laa qimata laha kon loolu amul benn taxawaay amul benn cëslaay bu wen lii warees na ko jaamu mu mel ni kon daañu gis ni lii mooy li xewoon ca dëkk ba bu ñuy wax Baabil bay na Dijla wal furaat bil iraq lii tam mooy li xewoon ci buur boobu nga xamante ni moom moo fa nekkoon mën a rëy lool di def lu bon lii mooy li xewoon ca dëkk boobu nga xamante ni a falaa Ibrahima alayhi salaam ganee àdduna waaye waajuram itam lii mooy li xewoon ca la doon jëf te mooy liggéey ay asnaam walbatiku di ko jaamu nit ñi itam di ko jaamu ñu ànd di ko jaamu. ba mujj buur ba di woote ak yàlla loolu itam nekk di lu doy waar waaye li ëpp solo mooy ci bii ab ci la Ibrahima alayhi salaam gane àdduna sunu bam teel ko wula bëti teel ko xamal ni lii kat du yàlla waaye kii yàlla mooy ki bind asamaan mooy ki bind suuf mooy kii jële jant bi ci fii di ko sowale fii mooy ki nga xamante ni mooy joxe mooy xaje mooy dundal mooy rayee kon loolu nekk di lu am solo bu ko defee ala kulli xaal daal danañu ànd ak yéen ci qissa Ibrahima alayhi salaam topp ko ba fi mën a yem incha allah waaye wane rek ni Ibrahima alayhi salaam daal euh, rawatina jamono bii ñu toll ku wax Ibrahima alayhi salaam sa xel nekk ci tabaski ku wax Ibrahima alayhi salaam sa xel nekk ci Ismaila ku wax Ibrahima alayhi salaam sa xel nekk ci Makka ku wax Ibrahima salaam sa xel nekk ci eh, tabaarakallaa ñoom Sarata ak ñoom Haajara ak xew-xew yu am solo yoo xam ne ba ilaa yow ilaa diin sharia l'islam dootu ko fàtte mukk wala boog kenn dootu ko fàtte ndax taxawaay yu am solo yi kon xam naa kon li ñu amoon ci waxtu euh, tabaarakallaa mat na foofu lay taxawa di in uridu ila al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh